كل شهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar bu mu tibbee xol fu sore si sama xol di ko jottali sunu sëriñ sunu xalifa cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bassirou Serigne Touba di ko teg ci loxoom yu tedd yi ngir mu jottaleel ma ko njabootu maam sëñ Touba yépp di nuyu sëñ Amadou Makhtar Mbacké xalif bu Daaru Xuddoos fi teew ak mboolem njabootu sëñ Touba bi nekk sa ginnaaw sëriñ bi maa ngi leen di jottali nuyoo yooyu ak ziyaara yi ci boole sëriñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké di sa porte parole di nuyu mbokk yi fi teew yëpp ak mbokku taalibe yi ak ñi fi toogal état bi sëriñ bi ñëw naa tey niñ ko daan defee at bu ne ñëw andil la nuyoo ak ziara réew mi yépp ci bés bu màgg bi di bésu lislaam di bésu cheikhul xadim ñuy waajal màggal bi nga xam ne indi na fi ay ngeneel yu bare ci réew mi ci diine ji ak ci àdduna bi yëpp ñëw naa ànd ak sama soxna ànd itam ak ministre de l'intérieur sa doom sa taalibe ànd ak ñëpp ñu fi teew ci turu nguur gi ngir ndokkale si la ci bés bi di sa bés ndokkale la waaye it sant la gërëm la surtout tey tànk yi ma fi ñëwee muy toujours tànk taalibe di tànk doom di tànk it njiitu réew njiitu réew boobu nag jàpp naa ne ci coobare suñu boroom waxtu wi déwén bu ko yàlla dogalee keneen war na toog fii indil la nuyoo ak ziyaara réew mi loolu ci sama coobare bopp la woon ma jàpp ne yëkkati woon naa ay kàddu laata ñu may falaat ci deux mille dix neuf noonu Sénégal boo leen ma wóoloo de joxaat ma réew mi fas yéene naa yemale sama liggéey ci senegal ci ñaari mandat yooyu kon nag topp wax jooju ak fonk ko moo waral ma yemale ko fii kon lii di ñëw fas yéene wu ci bokk waaye loolu du dindi dara ci diggante bi nga xam ne suñu borom moo ko def muy yéene ji nga am ci man fonk gi nga am ci man bëgg-bëgg bi nga am ci man te ëmpul kenn ci àdduna te ma xam ko yi dëgg lu nekk ci biir ak lu nekk ci biti kon bu ma tolloo fii war naa ñëwaat seede àdduna bi yëpp ne man de sant naa la bu baax këram naa la bu baax saa yu ma fi ñëwee li may wax mooy sëriñ Touba laa lay boole saa yu ma ñëwee ak soxla sëriñ tuubaa nga may boole yebal moo ma dem ci bërëb bi ah ba mu booleeg sëriñ tuubaa nag mooy boole nga mag sa bopp ndox yaay sëriñ Touba te xam naa li nga nar ci sa biir xol jëm ci man li nga nar ci senegal yéene yu nga am ci réew mi looloo waral ñu nit dañu war di wëlbatiku di ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak wér ndax sa yàgg fii njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci doomu aadama yi te it maa ngi lay dënkaat senegal di ko dënk kilifa diine yi ndax réew mi toll na foo xam ne ñi kilifa war nañ di yëkkati kàddu léeg-léeg di artu di sàmm ndax ku gis di xew ci Afrique tey ku gis li ñu wóor waruñ toog rek naan ñële la ñële la te seeni ñaan seeni artu seeni kàddu dana delloo ci xel yi loolu sëriñ bi lu am solo la euh, bëgg naa yow ak daal kilifa diine yi ngeen yokk sàmm senegal yokk di ñaanal réew mi ndax jàmm ji fi am mën a law mën a yàgg mën a yaatu ndax jàmm si la lépp xej ah man nag na ma la ko waxee woon bu jotee incha allahu rabbi euh, fas yéene naa fii bi ba may joxe lenge réew mi dinaa ko sàmm dinaa ko aar itam ci li nga xam ne moom la ma constitution jox ba nga xam ne benn yàqu-yàqu du duma ko seetaan mu ñëw ci réew li nga xam ne mooy lii sama wareef maa ngi maa ngi lay santaan nag lu gërëm lépp lu ma deful it ci liggéey bi nga xam ni sumb nga ko xëy na lu yàlla dogalul la waaye lépp loo yëkkati sama xol mooy jàppale la si bu baax a baax ci lépp nag te gis nañu it ngeen yi nga indi ci dëkk bu tedd bi di tuuba liggéey yu mag mag yi nga fi sumb ba ci njàngale mu kawe mi dara bu kawe bi di université Cheikhul Khadim gis nañu yii ñu fi liggéey mu tombe ak sa xilaafa muy autoroute bii ñu indi fi ba ci Touba muy hôpital bi ñu am fii ci Touba tey hôpital Khadimou Rassoul ah ak yeneen ak yeneen ñu ngi wax ndox me loolu yëpp waaye Touba yelloon na ko te it ah, man dem mbégte woon ci ma joxe ndigal sama gouvernement lëpp luy wareef ci dëkk bu tedd bi ñu def ko dëkk bi moo ni moo ni toll kon mu des rek di sàkkuwaat ñaan si yow sëñ bi fépp fu ma dem yàlla mën ma fa jàppale ma bàyyi itam réew mi ci jàmm ak salaam yàlla aar senegal ndax jar na ñaan yàlla génne na fi xéewal yoo xam ne fu mu feeñ nag bu ñu góorgóorluwul rek dana indi safan muy pétrole muy gaz waaye yàlla bu ci defee ñaan ñi nga xam ne it ñoom lañ fi bàyyi ëllëg ñu bàyyi xel loolu bañ a war réew mi li nga xam ne réew mi moo ko moom muy alalam su ko defee muy jàmm ci réew mi di jàmm ci askan loolu daal sëriñ bi ci gàttal laa bëggoon yëkkati ay kàddu sant la rek ak ngërëm eh, di jottali sant sa taalibe bi soxna Marème di di la sant di la gërëm di sant mbokk yëpp allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf salaatun alladi fi kulli shahrin wa fi safar hamani ala mahin mahal habsa wa safar فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر raditu anil mawla wa an xayri xalqihi